ñoo ngi lay nuyu di la delloo di la delloo nuyoo bi Fallou Gueye Fallou Gueye responsable du reptilarium au parc forestier de Hann waaw man maa yore affaire reptile yi foofu. ñu leen fii ne pax mu fi nekk dafa am lu fi yuuxu ñi naan jaan ñii naan dinosaure naka la demee. ah bon dinosaure mu amut Sénégal <laughs> fii jaan bi ñu am bu gën a mag mooy le le python de Seba mën na rejoindre 7 mètres de long di peser 100 kilos 400 mais bi ñu recherché fii siiful bi doon na ko nuru. mais nag siiful bi dafa évoluer dafa am leneen loo xam ne nii moo ciy rax du mal du meloo cent pour cent siifulu Python de Seba waa bi ñu defee suñ saytu bi defee suñ saytu parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo fi woote ni jaan dafee nekk mosuñu fi gis jaan mosuñu ko fee gis lu lu xeet ci piton bi ñun ñi nga xam ñooy rechercheurs yi ànd ak sapeur pompier di recherche aussi gisuñu ko indi nañ fi xaj yi gisuñu ko euh, piégé nañ ko ak ay poulet parce que jaan ganaar mooy saytaaneem piégé nañ ko génnul. te gisuñu fi ay trou yoo xam ni wala fu am ndox foo xam ni piton de Seba war na fi mën a dëkk kon li ñuy mën a jàpp mooy jaan amu fi gisuñu ko fi lan moo war a nekk di yuuxu li yëngu ci pax yi tiwo ndox yi nga xam ne moom lañ branché ci kaw ndox muy jaar ñu installé ko ci biir ndox mi bruit ndox boobu la parce que ñii ñi dëkk ci kaw bi ma leen envoyé ñu versé ndox ndox moomu dafa dan rumeur bi dafay génn dafa génn waaw dañ ko dañ koy dégg waaw merci beaucoup